mooy euh, adversaire bi faible la euh, te gis nañu ko comme bépp nguur buy daanu ci àdduna bi euh, ay nit la ñuy yónni toujours ñuy wax ay waxu daanu saret dama bëgg population sénégalaise bi ñu yeewu ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk te ñu xam ne ñi ñuy jox ay leçon de morale ci ni ñu war a doxalee réew mi xëy na ñoom seen <clears throat> cere ronko ñu baadoolo siimu ko mais ñun li ñu xam ci Sénégal bii ñu nekk euh, ronko ñu baadoolo mooy siim cerey buur te loolu dakk na loolu les Sénégalais ont pris leur responsabilité loolu jeex na ci fan yi ci ginnaaw euh, je pense que tey euh, parti au pouvoir muy jeunesse bi laay waxal jeunesse bi yeney partie parti au pouvoir yéen a war a joxe ay ordres les les ordres ne viennent plus euh, du parti de des partis de l'opposition parti de l'opposition tàmbalee ko ci le président qui n'a pas de couille ak ñi nga xam ne moom la ñu àndal euh, boo leen xoolee ci njëlbeenu waxtaan bi ce qui est bien inscrit c'est le gouvernement terroriste du Sénégal Euh, gouvernement boobu nga xam ne barki Dembo Ndiaye bu ñu ko tàmbalee ci seen benn doomu sénégalais bu nekkoon fii ci Amérique Assane Diouf euh, bi mu jàmmaarloo ak ñoom te xamuñu nuñ koy def dañ ko accusé de terroriste pour ñu indi ko ci réew mi pour ñu mën koo mate ndeysaan ñoom benn pexe rek la am pexe bi ay duul laa ki kàcca ki fen ñoom amuñu pexe def lu baax ñoom seeni pexe ci ay fen la euh, may saluer de passage une dame Euh, beaucoup parmi vous nag quand même may saluer jigéen ñi jigéen ñi particulièrement jigéen ñi mais ma gën a saluer benn jigéen bu ma gis euh, ci Sénégal démb ba léegi ñu ngi may yónnee vidéo bi mu doon fierté euh, jigéen boobu mu génn muy wax ci réewam muy wax li ko naqari ci réewam muy wax li nga xam ne moom moo ko metti ci réewam te mu doon jigéen boo xam ne man nañu ne tey Elle sera dans l'histoire du Sénégal jusqu'à l'éternité. Euh, cette dame, je pense que le nom c'est ndey Ndak. ndey Ndak la defe naa mooy turam parce que elle a pris ses risques elle a pris ses responsabilités. Euh, dafa xam ñi nga xam ne ñoom la seqal réew mi moom mu jël ay responsabilités mu génn wax. je pense que ci kaaw George Floyd bi gis nañu tous les artistes sénégalais et les stars sénégalais. sortir et faire à genoux pour George Floyd qui est un américain noir qui est aux États-Unis xamaluñ ko dara xamuñu fu ndeyam jóge xamuñu fu baayam jóge xamuñu fan la jóge sax xamuñu sax fi mu dëkk ñoom ñëpp ñu sukkal ko def à genoux def ay bras ayam am George Floyd wala ñu ne non au racisme euh, loolu gisoon nañ ko fi ñu gis tey Sénégal di nàcc Sénégal di jooy euh, tey nag li génn ci dof bari na dof laa leen mën a tuddee parce que du ñu ay nit ñu wér gis naa fi ay gone yu yaradeku yu génn ñu ne ñoom dañuy joxe euh, ay bon exemple dañuy wala moom pays va mal ak sama bopp réew a ngi metti ay gaalu dof du teer waaye fa muy teeree du neexi mbokkam euh, c'est de la comédie et je pense que réew bu demee ba ay doomu aadama di fa faatu di fa ñàkk bakkan ay seeni bakkan euh, réew moomu dépensé na ay caaxaan man sax am nañu ma ci interpellé ndax ci seen toile boobu euh, Ndeye Ndack di nit ku extraordinaire am na ñeneen yeneen jigéenu naafeq yoo xam ne rax nañu foofu euh, ñi nga xam ne ñoo doon interviewé Ali ay Alioune Sall ki Macky Sall ak ñoomin seen euh, te duñu ay exemple ci suñu réew ñu leen dine ne honte à maanaam gàcce gi yóbbaale leen ko ndam li yéen ñi nga xam ne yéen a ngi xeexal Sénégal jël ngeen ko mais à la jeunesse sénégalaise particulièrement Euh, demain c'est un tournant décisif suba la suba déglu leen ma de suba la suba bëgg naa ngeen pare pour l'assaut véritable sur Macky Sall et son gouvernement demain bëgg naa yéen ñëpp incha allahu rabbi ñu joxante rendez-vous comme niñ koy defee bis bu ne bu leen déglu nag comme ni ma leen koy waxee benn voix bu bees buleen topp benn nit bu bees bu leen topp benn group bu bees nañu rester dans nos logiques nañu préparer pour suba demain sera l'assaut qui va faire déborder le vase suba incha allahu rabbi fas nañu yéene bu ñu jógee ñu wàccee terreur boo xam ne ci kaw Macky Sall ak sàccam yi ak man yi ak ñi nga xam ne ñoom la àndal nga xam ne duñ ko fàtte ba keroog àdduna di tukki comme ni ma leen ko waxee Macky Sall on donné nos avertissement xam naa mi ngi laqatu ci pax la plupart des temps tapet yu mel noonu bu dëkk yëngatoo dañuy dugg ci pax laqatu peuple sénégalais bi lay waxal waxuma ak défaillant yi défaillant yi nañ leen bàyyee de leur côté mais le peuple sénégalais nañu jóg suba incha allahu rabbi xanaa ñu yeewu fekk makki Sall rendre démission bu Macky Sall rendrewul démission balaa suba ci suba nañ ko wër nañu xam fu mu ne nañu xam fuñ koy fekk nañu xam fuñ koy jëlijee incha allahu rabbi ñu fexe ba lépp loo xam ne loolu mooy ndam ñu delloowaat ko ci loxo Sénégal lépp loo xam ne mooy freedom ñu delloowaat ko ci loxo Sénégal Sénégal bàyyu kenn moomu ko mënu leen toog ay ati at di ñu duul ba tey ngeen ñuy fen ba tey ngeen wax lu dul dëgg ba tey ngeen bëgg ñu toog fii di leen déglu duñ ko defaat